waaw mbokk yi ba léegi rek yéen ñiy seenaan askanu Infos ñoo ngi nii taxaw ak imam imam nuyal mbokk bi seenaan askanu Infos tey ñu ñëwoon fii si gàmm gu màgg gàmm gu tedd ci ci euh, tey ban yéeg-yéeg la nga am ci gàmm gam gi gis organisation bi di ñew fi lan mengé manam tay lan lañ mëna xam si asan euh, asan Touré té lan lañ mëna xam si mom comme ya imam dëkk bi. alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax ci question bi ñu ngi am mbégte ak kontaan ci question bi waaw Assane benn waay la taalibe boo xam ne mu ci ronu Baye Sow si Sow di ci la la sant ñëwee nag yàlla natt ma ci liggéey rek waaw liggéey boo tabax taxaw benn boutique waaye ànd ak loolu yëpp doxal fay du fu ne moo muti dem rek ñoo daal ba tey lan léegi moo des na bokk daal bi gis bu ñuy ñëw dañuy laaj ci kër Assane euh, Assane Touré bitik waaye mais nu mën a nekk borom bitik après liggéeyal fay du bi sëriñ bi loolu baa doon si amee jafe-jafe waaye nag itte rek euh, ndax ko waxoon ne maa dugg am comme ni nga bëgg rek nga amit tey maanaam yëg-yëg bu métti ak a euh, tëgg kawe ndax bàyyi dafa waxoon ne ndaw euh, réew mi dafa soxla ndaw ban la ndaw ñi nga ne am euh, xam-xam ko rek du ko doxal waaw si baam wala ki bal si baam sa mooñ nambatal ci liggéey la ñuy sant jaamu yàlla alhamdulilah ku wax lan menge wax taarixu bambara xama maa ngi dégg ñu ne naa na la bàyyi ni mu ba aw say maanaam gëm ko loolu jaaxal nañu mais nan lañ def daje daje daje Assane Touré daje daje daje mu xanam albaraka mooy bàyyi Assane Touré ak Cheikh Cissokho lan lañ ci mën a xam seen daje ñoom

a wax taalibe te ñu ne taalibe mun a moo mën a wax sëriñ tey buñ bëggoon xam bàyyi si doxo bàyyi si bàyyi si doxo buñ ko bëggoon xam tey moom mooy kan. sëñ bi laaj ma question boo xam ne tontu naa ko tontu ndax bàyyi seewu si sama sama sang nekk na ne ku ñëpp xam wallaay ci tabe ga ci dal ga ci yaatu ga ci xam-xam mun ma wax ci ndax dëgg-dëgg góor boo xam ne la su ma su ma su ma soxla ma ne góor boo xam xam ci àdduna te xam ci àllaxira bi sax ndax waaj loo xam ne dëgg-dëgg soo ñëwee ci kepparam xam-xam rek xam-xam yar ak tegi loolu la ñu xamee ci keppaay seen suuf ba tax na képp ku gis taaliba da nga xam ne kii ku yar la ci waaye ku la ci fay donc kooku may bàyyi sax loolu ma xam ne tuuti ci moom ma ko xam ne jeexal kooku duñ ko xam moom mooy góor yàlla moom mooy ndimbal yàlla gi ñu ñëw fekk fi benn conférencier bu mag conférencier bu tedd mooy Cheikh Baye Gueye tey la moo tax ne maa leen tànn jël Cheikh Baye Gueye jox ko conférencier waaw Baye euh, loolu ñu ci am fi tàngoor na lu baax ci question boobu tamit euh, Cheikh Baye Gueye dëgg la ñoo ko jiitu ci keppaaru sëriñ waaye nii rek jamono goo xam ne dañu demoon dumuranga ji wuti wuti xam-xam wuti leneen bu ñu suwaatee fekk ne moom bu mag si loolu sëriñ waaw sëriñ jar ko ci xam-xam tey ku jiite lu bëri ci kër sëriñ bi ñëw ci kër sëriñ bi sëriñ bi boole nga ak moom te mooy dañ xool naa la bay bay géey waaye mu ma lool wax ma tax am maanaam diine bu am yar bëgg ko bëgg taa bokk taal waaye ñu gis yaatu boo xam ne dëgg dëgg moo ñu may tey fit ñu may tey léegi imaam ñu bëggoon jaar-jaaru faydu maanaam fii si tey lu ñu si mën a wax taarix maanaam bu ñu fi njëkkee ñëw maanaam jël benn faydu noo ko doon lay dox sax jamono yooyu dëgg ma tar bi fii si koñ bi lii woon na nga gis bu taxaw ne man taale bàyyi la maa ngi fàttaliku bu ma jógee ci ma xaal métti waaye sama tar bi ma jógee foofu ma demoon caal di jamono bay ma téye machine bi di sikar su ma sikar ba su ma xool tooyee ma sari machine bi di jooy bay samay grand samay rak ñëpp nag di dafa dof bàyyi leen ko waaye léegi nag sama mag ñoo téye ma jox ma ma naan waaye ci loolu ci laa ma toogee sama biir kër yi sigar sax gis xale yi doon doon xool naan ne eh, waa ji dox na waa ji dox na ci biir loolu ñu dem bi dem ba fay du ñëw suñuy rak tarbiyu yeneen ñu ne ci ko bi tarbiyu ñu nam ñu yàlla ba xam ne dëgg-dëgg li mooy dëgg fay du noonu la démarré ba tey ñu toll kon ñun mbokk tey lu yàgg la woon mu commencé depuis 2009 ba léegi maa ngi ci waaye tey ndaw yaa ngi bëgg waaye jël nga métti la trop ndax imaam imaam lañ dalaloon fii ci plateau askan bi info kon imaam da nga am ay gan ay gan yu tedd looy tàggoo mbokk yi seera askan bi info. waaw vraiment kontaan naa bu baax seen ñëw gi ndax ñun waa Baye Baye Gueye boole ak ma mbir te loolu sant yàlla li nga mën a sa bopp lii.

leen dalal fii ci ci ci Latmingué ne seen seen kër la seen mbokku taal ñoo fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah. kon mbokk yi yéen seen askan bi info tey ñoo ngi woon fii si Latmingué ànd ak imaam boo leen déggee si kenn da ko laaj mooy Seyda Khady Thiaw kon tey maanaam baas bi am ay surprise kan moo koy kan mooy waxtaanee gàmmu gi mooy Cheikh Baye Cissokho man Serigne disponible laa koy wax boo xam ne tey. sëriñ boo xam ne boo ñëwee da nga koy fekk si ëtt bi mu toog di jaxasoo ay taalibe boo ñëwee mu ne diw boole naa la diw te ba léegi allah xam rafet la am comme na ko sëriñ bi booleeg ak Cheikh Bagui kon mbokk yi topp leen ñu incha allah si Uncasam Infos da leen indi reportage am solo kon jërë ngeen jëf kon ba si kanam bi dugg si biir baat incha allah. mooy suñu waajur suñu ndey ak suñu baay waaye nag suñu kilifa baatin mooy ki nga xam ne moo ñu jëlee si lëndëm si si leer muy suñu sëriñ Mawlana Ba ndax daf si anam boo xam ne anam bu doy waar la mu jël ñu foofu raxas ñu bañ set won ñu ne dara néew lu dul diine islam ak ihsaan ki la defal loolu nag amoo fayam kooku mooy sa yàlla mooy sa yonent mooy sa Seex Tijaan mooy sa Baay Ñas moo tax ma ne mooy borom jamono si ñun. ñi gis chaque jour bu gàmm amee taalibe yi wu. maanaam ñëw damay gis ni sotee le siège bi gis ne nañ jógee fële sa kër Abibou Niass te Cheikh Baye Gueye tey gisaan nañ defaraat mobilisation ñëw fii ci lan menge nu fa demee noonu seen. waaw sant yàlla ak muñ rek man de dama wax ñaar ba ñu ñëw si yoon bi ma ne euh, Imam Assane mënu ma ko seedal bëgg yàllaam lu tax mooy loolu digganteem la moom ak yàlla ñoom ñaar ñoo xam ba xam Imam Assane bëgg na yàlla wala yàlla bëgg na ko. waye mën na ko sédel yitém ci yalla ndax lu toll ni fi ak kaw nak sérena waye da koy déplacer fii ñu ñëw ba Kaolack ndax bëgg baay seexu kon mën na ko sédel yitém ci yalla yité boobu mu ñu ji nak mo waral ñun tamit ñu bokku talib yépp ñu dajalo ñëw ndax loolu te sëriñ bang ci yoon bi euh, mo ngi ñëw insha allah. ñi gisaloon 16 na taxaw xamala 16 bi bëggo na la gis laaj la. tey na gis Cheikh Baye Gueye nu mu organisé bés bi tey ban yëg-yëg la nga am ba nga ñëwoon foofu si kër Abibou Niass ma gis na na xaal ba ñu lay adhéré sëriñ tey moo la bëggoon laaj Baye Gueye moom Baye Gueye Baye Gueye moom mooy kan loo may wax sëriñ. Cheikh Baye Gueye waaw de taalibe la waaw bi muy ñëwee si daara naa ne booy bu booy bu ndaw la waaw fekk ñu fa nag ak bëgg yàllaam waaye tey dem na ba mu bokk si ñi nga xam ne moom la ñuy naw si biir daara ji mais lépp bëgg yàlla moom moo ànd loolu bëgg sëriñam moom moo ànd loolu te ki ñaar la am si àdduna muy jaamu yàlla ak bëgg ko te gis nañ loolu noonu ci moom moo waral keroog ñun ñëpp ñu dajaloo ñëw kër Abibu dégg nga sëriñ bi di wax te la amul si ki dafa dafa wër a di woon yi dañ ne ko woon na toog mu ne du toog foog mu si bésu Cheikh bi

moo tax euh, bés bu màgg la kom kom yow yow yow ni nga ko daanaka yow firi nga ko sax balaa nga may laaj loolu yow firi nga ko ba waaw loolu la daal waaw. kon alhamdulilah mbokk yi yéen seen askan wi foofu sëriñ bi lañ àndaloon incha allah kon ñoo ngi dalal benn invité jërë ngeen jëf. balaa ñu dem ci loolu dinañ jox Cheikh Ba Guèye mii Cheikh Mohamed mu defal ñu euh, présentation ndax tàmm nañ ci Sénégal wala ci àddina bi yëpp. ku lay defal conférence war ngaa xam mooy kan ndax jàng na walla jàngu ndax sama genre gi kat bëri nañ de dañuy ñëw rek toog ko microphone di conférence nga foog na dañoo jàng fekk dañoo lijjanti rek ay mbir waaye am naa yaqin bu wér ne Cheikh Baye Gueye mii lijjantiwul ay mbiram de xam naa ci tuuti de waaye dafa am na cër bu nekk dafa ko ko moom naa ko bàyyi waaje dem mu leeral ko آل جدود كرام يعلم ما أنظر عاصمة كل عمر خرجت सारे Siyyidah Tairan Siyidah اش سے Cheikh Baye Gueye moom la ñu wax mu présenté muy ndaw loo xamante ni comme ni ñu koy waxee si diine rek ginnaaw ba nga xamante ni am na waajur yu baax di sët si Cheikh Mouhamadou Habibou Niass nga xam ne mooy borom kër Habibou nga xam ne man dama naan mooy boroom ñetti ngërmande yi ndax dafa ànd ak Maalaaji Abdoulaye ba mu gërëm ko ànd ak maam xalifa Niass ba mu gërëm ko. ginnaaw ginnaaw ga ba borom fay du feeñee bi xalifa Cheikhu Tijaani yi mu ànd ak moom ndax daf koo xàmme googoy maamam nga xam ne cheikhaan yi moom la doon wax naan ko kullu sayrin yu duni habibu wa minhu julla amrin garibu képp koo xamante ni dox kan nga boo xamante ni da ngay dox jëm si yàlla da nga bëgg yàlla may la yenn yenn may yi nga xamante ni dañ koy may si faydu la yi digal nga jege Habibou Niass nga xam ne ba muy ànd ak bàyyi mag la te néew na si mag moo xamante ni egg nga si si benn âge bi nangoo ànd ak ndaw topp si kaw ndaw mu xilif la loolu jafe na torop torop li ko waral nag mooy li borom Fass Muxtaar doon wax rek naan kamil saxirin yura wal almu kabbarahu مؤيد طاهر للعز مكتسب وكم من كبير يرى والدهر صغره مبكة خامل في الذل والغلب dafa bëri ñoo xamante ni ay mag lañ naam waaye boo toppee seeni mbir ruy gane gane si na leen ba yàqal leen seeni yoon ndax xàmme nañ borom dem mu bañ koo topp looloo tax mu ne ba min hu jull amrin xarib bëri na si maasam ñoo xamante ni xàmmi nañu waa ji bañ koo topp kon moom su ñëwee ànd ak moom rek amut sikki nag kañaan dañ na si moom rëy dañ na si moom lépp luy gàkk-gàkk xol dañ na si moom kookoy maamu muy ndaw loo xamante ni jàng na alxuraan comme niñ ko waxee ginnaaw bañ ko tuddalee utalee tur sedd ndax turam mooy Cheikhu Tidiane yi donte Cheikh Baye Gueye lañ koy wax ndax papa Cheikhu Tidiane xalifa moom lañ ko tuddee dem daara bàyyi waat jàng fa بيالا ما يكون يمكن ما يسي القرآن سي قم قم نقم نه والو فقه توب قرن نلب لغة كذلك نحو كذلك إن أولون سوبنا سي يونو فاي بيونو غوري علي نقم نه جمال يجي كيف كو خم سيلا كو خم نخ يونو تموني كو تيلو نوخ تعرفوني قبل ان تعبدوني فان لم يعرفوني فكيف تعبدوني قام لين لا تنين ماي ديو كون موم يون بوم سوب نسي الحمد لله با يالا ماي كو سي لو خامتيني نيونا ماك موم توم مونكو ماي بري نيو خامتيني سما كلاس بي نيو بوكون جينيراسيون الحمد لله يالا ماي نا بو لو خامتيني با ليغي ني سي غور غور نو اك اندا بولي يالا بو مات ولي موي مولانا با شيخ سي شوو xam dama def erreur mom la warone ziar avant tout waye nak jamu yàlla bo xamanteni amo xam-xam ñu no wax ci mbolo c'est la première fois mon bo defee erreur mon nañ la koy jéggal di djégal ma koy ziar di ko ñaanal yàlla muy serigne bo xamanteni mbolem lu bay wax ci serigne rek watlub murabbiyan xabiran nasihan kaamila arifan imaman salihan lépp dafa dajee si moom moo tax maliku sa rek moom lañ jëfandikoo di ko ñaanal yàlla may fon gudd dool wax nga wér géeram ñu dool ko mbooleem sàkku téefam rekki mbooleem mi noonu noonu zahir noonu baatin noonu buñ xam ak buñ xamut ak i Cheikh Tiyaan nga xam ne ndaw la loo xamante ni daroon jiim rek te te mbir mi da koo bett di leen ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiix ak taysiir def si xol yi noppi baatin yoo xamante ni dinañ ko dégg ndax amul sikki ne borom xam-xam bu mag la ku xam yàlla la aarif la aalim la aabid la nit dina nekk aalim te du nekk aarif wala wala mu nekk aalim bi aarif te du nekk aabid ñetti maqaama yëpp boole na ko alhamdulilah macha allah di ko ñaanal yàlla tanaan ko ruuxul kursi maaka ajadaka allahu wa nasarak barke Cheikh Tidiane moom si gars yi dañ mën a dégg Mawlana Cheikh Tidiane Chérif anhu goor la bo xamne ku ñepp xam la way sama bëgg ci tariqa bi un tariqa bi deug deug du ma wax la la jaar wax nga ndax bi rek bi ki ndox mi ñu roosee garab gi ba meñ ki ko rosé ba meñ ko kooku Cheikh Tidiane Serif Cheikh Tidiane bu lay wax wa dum wa salam Cheikh bi xali fi ne do fi len ko Cheikh Tidiane bu ñun mom moy ñek wax bo ci asal ba yàlla am lu dara wala bi yàlla am na lépp ba mu dikk ba pare mu waxe ci lamine bo xamni bi ñuy ba mu wax mo dara dara feñu ko نعرفواني كنت عالما بولايتي لا آدم ولا ما ولا تيم ما شاء الله نكنا في دخم سما ولاية تفيك بوبا بن أمور سوف أمور آدم أمور نخ أمور كن بوبا در أمور كنا بوبا لير أخر ما نير ما فيني نكنا في دخم سما ولاية تفيك بوبا در أمور kon Cheikh Tidiane wilaayam jiitu na wilaayam jiitu na jiitu goo xamante ni bii jiitu na lépp parce que yow li bi mas àqam dafa wax ne kuntu xaarifan bi nubuwati wa aadama baynal maa yi wa tiin nekk naa bi di xam sama nubuwa nekk boobu aadama mi ci diggante ban ak suuf diggante ban ak ndox kon bay na la wax ne Cheikh moom dafa def laa laa laa laa ndox amul ban amul suuf amut kon wilaaya moo fi jiitu nu bóotu ci ñi ndax si wilaaya ngay jaaree pour dem si nu bóotu bépp bépp yonent rek jaaree nañ si géeju wilaaya pour mu àgg si maqaamu nu bóotu Cheikh Diagne boobu noonu nag moom la yàlla teralee tariixa Tijaan ndax moom wax na ci laam ñu boobu ne kuluma faadoo barasa min àgg na tirat sa talaqaahu saadi nabi sallallahu alayhi wa وكل ما فعله بارز من سعد النبي صلى الله عليه وسلم ستلقاه صوات الانبياء والمرسلين وكل ما فعله بارز من صوات الانبياء والمرسلين ستلقاه صوات ومن نيسان فرقو جميع الملك كائنات من اصل الى الابد من سيغ ريال لب لوكم دابا تجليا لو سي ميال لي سي يونت لي وات يونت مو غي جيل جوكو انبياء و مرسلين سوف باي بو دافاي ديلوار سي صلى الله عليه وسلم مو ديلوار سي صلى الله عليه وسلم يونت مو لا képp kenn ku ko jot man Cheikhul Diagne maa ngi la ko jox kon gannaaw bi anbiyaa wa bi kenn àndal si abi yi ah, wala yi ñoom ñun ñëpp sofiyanke yu mag yooyu yëpp Cheikhul Diagne moo leen nandal diine ndax lépp lu bàyyi ko si yàlla la wax ñoo si yonent bi yonent bi anbiyaa yooyu la koy jox ak mursaliin سوبر هذا في جل واش دي بيون النبي صلى الله عليه وسلم يوم دي جوخ مكو مان كين كيب كو سي جوخ مان سي يقول يا ما يكلو جوخ كون ان حرب الحاتم درجه دي اك مقام بري بو مو ديوان با اك ديوان بنا الله وختم الولايه فوك نيو مقام ختم يد كان مي دكو جو لموس فوك كان دا سي يقول يا دي بو دا سي يقول يا فيني لا وديني انبياء يا مسلمين يقول لي بنا سي يقول يا كيف بكون عندك لا وليو كان لك وليو mukk ilaa min baadina wisra loolu nag kon képp bu koy tàmpoo ak nubuwatam ak wilaayatam rek Cheikh Oudiyane mooy keneen nandal radiyallaahu anhu Cheikh Oudiyane moom nag moom pour ñu xam dëgg-dëgg dayam wala boo ñi meelal ko rek pour ñu mën a comprendre li ma bëgg wax mooy ki nga xam ne bii nii moom moo wax ci àqam ne al waxtu waxti wa sabqu sabqi wal inaanu inaani man Seexu Diane may waxtu bi waxtu bi man la man Seexu Diane may jitu gi ku jitu maa la jiital waaye man Seexu Diane may yor laab gi maay conduire kawlu bi loolu waxu Seexu Diane la Seexu Diane ne moom moom mooy waxtu bi te loolu baa ngi si lay na bu yàgg naa waxoon ne euh, yan boobu ku loo xaarif woo Samson Seexu Tijaan mooy ballu waaye bépp aarif Seexu Diane moom mooy jant bi te mboolem heure waxtu bu ñuy defee rek ñu koy jëlee si jant bi.

Ibrahima mii di Mawlana Cheikh Islam Alaaji Ibrahima Niass moom kóllëre kóllërante kóllërante nag Cheikh goo xam du rek waaye ci Cheikh Tidiane moom laa yaakaar ne raw mboolem mars jiitu ñëpp bi mu yaakaaree Cheikh Tidiane jiitu ñëpp si la jiitu ñëpp boo wax ne udriku man mada wa afortu man baqa wa inda saabu ko rijal jiitu woon dab naa leen ñi nga xamante bii ñoom laa ciblé dab naa leen romb naa ñenn ñi ñi ma ciblé woon dab naa leen mu ne képp koo xam ne yaa ngi rawante man rek man daal la te waxoon ne ne ci Cheikh Tidiane laa yaakaare raw masque bi mu ko yaakaaree Cheikh Tidiane la raw mboolem lu màgg la mbiram lu rëy la Cheikh Tidiane moom la bàyyi wax ci àqam ba tey ne fa sayxi fooxal aarifiina wala sunya sawaawun alayna man yamuutu wa man yaxyaa Cheikh Tidiane moo kawe mboolem aarifoon bi laay moo leen tiim képp kuy aarif bi rek nee na Cheikh Tidiane mooy ki lay mu ne moo xam yemoon nga ngay dund wala nga dee waliyu bi dund Cheikh Tidiane mooy koy tëbb waliyu bi dee bañ dee ko sax Cheikh Tidiane mooy koy tëbb ndax bàyyi ma ko wax sawaana alaynaa man yamuutu wa man yaxyaa yemoon na ci kuy dund ak kuy dee kon kooku mbiram lu kawe la kooku suñ ko bëggee meelal yaakaar naa fii la ñuy ko mooy maanaam Cheikh Tidiane Serif radiyallahu taala anhu Cheikh Tidiane moom nag moo feeñ ci ay nimaat yi ci àdduma yi ci ay nimaat yi bi feeñee ci ay nimaat yi góorgóorlu na jàng mboolem li doomu jullit di jàng na jàng na alxuraan mokkal ko ci waxtu bu gàtt ci juróom-ñaari ginnaaw bi mokkalee alxuraan gëstu na mboolem xeet xam-xam yoo xam dañ koy bind muy elmun maxquul wa manquul xam-xam boo xam ne bii dañ koy bind dañ koy toxal gëstu na mboolem téye ba nekk ci xaalimul xallaam ba ñoom nangul ko ko ba mbayee ko si loolu soobu na yoonu góor yàlla yi soobu ci yoonu góor yàlla yi ba jot mboolem maxaami yi ci yàlla ndax képp koo xam ne bii omatu na topp sa kaw rek da nga dem ba gis ne man kii toog sama kaw moom ëpp daraja moom ëpp maqaama yow yaay wër ba di topp ci kaw kon kooku maqaamam rëy na lool moo tax bàyyi yomb na ko ak sa seex ak kulli fiyaami nag yonent bi mooy dikk wax na ko baal yooyu yëpp man maay bi moo la basé wu di fiir mu ne Cheikh Odiyaan dafa jàpp ci soixante-treize sëriñ مني سنتريز مني مقام أقد مامدي مني مقام ينس من أقد مامدي مني مدي كده فرما زي مقام يب يروح زي لبنان لقي جاك على دريت دي مليون دي صلى الله عليه وسلم سليون دي مدي كده يك تيجي قام اللي بيني مني مود مني خو مرا بيم توبي سيمولم بوري عليه بنيوم يب نجار بكو أمور توبش كوم بيم بايع بوجدوره يوم صلى الله عليه وسلم مني كده دريت جاك عليه قام اللي بيني مني مود مني نعم bokk ci si yàlla yi jàpp ku melni ni du kurdi ku ne xamne wilayam ak daraja mu toll mais dafa mujj amul comme ci ginnaaw Cheikh yalla Serigne radiyallahu anhu motax bimu deme ba xamne ra ne avancé na maqaam yooyu yeb nak ci abi yi sampoon ci la ko sallallahu alayhi wasallam dal di feeñu wax na ko bàyyil askar mboolem askar boo xam ne yaa ko liggéey nga bokk ndax Cheikh Tidiane nekkoon na ci tarix xalwatiya baal yooyu yëpp nga xam ne wéddi bii ma lay jox si laa lay jëriñee te yow si ngay jëriñee mboolem xeet ndax an ko kulli askari xaw mi xaaka weddin inni ali yara jaaw bàyyi wax na ko yéen dana ko bàyyil mboolem askar yi nga jàppoon te jàpp bi xam ne si laa lay jëriñee ci abi nga xam ne abi sankoon benn makkaan la bu ñu doon ooyee asri abi sankoon ndax benn wëllu yàlla bu mag benn sofiyaan bu mag boo xam ne jaamukati yàlla bu réy la woon ñëpp nangu mi abi sankoon moom moo ne foo tëji fa xaloo jàmm fa yàlla ba dee ñu rob ko fa hmm, foofu ñu ko rob moo lañ tuddee abisam la seewal jaan dikkoon ñëw tëji ma naam xam nga ko ne ko man sama sët nga anta wala di sa boobu moom sax mooy sërif moom yonent bi bi mu ko fekkee foofu nag si la ko jox tariixa tijaan muy tariixa boo xam ne bii bàyyi wax na ko nee na tariixa maa di fadli wa ridwaani usisa dafa sell si ngëneel ak ngërmaande ñu ngi ko fondement ci sunna ak alxuraan te yéen sallallahu alayhi wasallam waxoon si hadiis ne ñaar rek la leen fiy bàyyee boo ngeen ko jàppee du ngeen sànku mukk ñu lay ko lu laal la ne sunna ak alxuraan taraktu fiikum amrayni maa in tamassaktum lan tadillu abadan kitaabullaahi wa sunna mooy téere yàlla bi ak sama sunna loolu yonent bi bàyyi fi ne Seexul Yàlla ñëw lem ko taxañ ko tëngu muy tariix ci yàlla muy mbóot muy tariix bi moo tax Seexul Yàlla yonent bi feeñ ko foofu noonu daal di yëkkati mbóot mi jox ko ko jox ko istifaar jox ko salaatul faatiha jox na ko istifaar jox na ko salaatul faatiha foo lee yem moom mais ni si ginnaaw gi

léppi tariqa bi ngëneel la dara nekku si loo xamante bii nii luy bidaa la ndax si alxuraan bu wér lañ ko ak si sunna te bàyyi si li njëkk bind bi muy bind li njëkk bind mooy tariqa tijaan li mujjee bind mooy tariqa tijaan te li njëkk wax dana nasiihatu minnii ilaa ixwaanii fa tumsiku tariqata tijaan lii laay biir li bu bos man jëm samay mbokk maa ngi leen di digal ngeen jàpp tariqa tijaan bi mu demee bay mu jamono bi itam nettali nañ ne bi muy bind bind bi sax loxoom bàyyi na lox ndax boobu amatul kattan mu bind itaqullah fi sirri wal ixlaani wa bi tariqati tijaani kër solli axyaari wal amwaati na ngeen ragal yàlla si lu feeñ ak si lu nëbbu waaye ngeen mooy si tariqati tijaan bi ndax tariqati tijaan bi mooy màng mooy namb ñeel képp kuy dund ak kuy loolu la mujjee bind la tariqa bi itam si la njëkkee bind kon

tijani yi wëliyu laay bépp tiijaan rek mu ne wëliyu yàlla nga kullu tiijaan yi wëliyu laay indal mit fadili abil abbas baaxul buuri baabul najaati bépp wëliyu rek bépp tiijaan rek wëliyu nga bu ba ngay dee nag mu ne wëliyu nga bu ba ngay dee mu ne boo dee ilal asaraati ba keroog yàlla di pang keroog bis pénc bi ñu mu ne ñu ko li nga xam ne bii nii mooy géeju géej gi waaye moom mooy buntam na jar mooy mooy bunt bi nga xam ne si ne yàlla ràmmee jaan yi ku mucc rek Cheikh Tidiane mu mucc yëpp parce que moom moo taxaw ci barsax bi Cheikh Tidiane moo yëpp Cheikh Tidiane mooy ku yàlla safara bi lay lakkee loolu bu ko waxee dana naka di waaye képp ku dugg aljana yi dem Cheikh Oudjian mu ngi ko fa dugal parce moom moo moo ne ci barsàq bi mooy sàq fii di dugalee fii di sànni fii mooy sàq fii di sànni fii te yàlla waxoon si bu yàgg ne fareexul fi janna ba fareexul fi seen kuréel gii ñoom ñëpp safara ki tàq na loolu nag ba nga xam ne ñi ñooy ñooy safara ñi ñooy aljana kooku moo di tax mu ne min fadli Cheikh Abil Abbas yi baaxal buuri baabul najaati mooy buntu mucc bi loolu tax mu andi tariqa bi pour ñu muccee si pour ñu muccee si li nga xam ne bii mooy tariqa tijaan tariqa bi wax nañ ko Cheikh Tijaan moom tariqa bi mu ngi tuddee tariqul hamdi wa sukri wal jasbi wal maarifati wal mahabbati moom tariqa bi noonu la ko tuddee ñun la ñuy wax tariqa tijaan waaye Cheikh Tijaan moom ne tariqa bi tariqal hamdi wa sukri wal jasbi wal mahabbati wal maarifati tariqa sant la tariqa sant la waaye tariqa la boo xam tariqa bu gis bu la ndax day xëcc jaam bi sànni ko ci pay yàlla bi waaye tariqa bu mbëggeel la ndax da lay may bëgg yonent bi salaay salaam waaye tariqa bu maarifatul la ndax da lay xamal yàlla maanaam Cheikh leen waxoon ne wax la bi ana tariqa Cheikh daaminatu ala darbi usuli wala fi axira ma tariqa Cheikhul Yaam yi dana garanti nit ki mu àgg si yàlla xam yàlla doonte dafa nekk si mu jëg lax sa kon tariqa maarifa tariqa xam yàlla la tarixa maarifa la ku si jàpp ku nekk bala ngaa dee da nga xam yàlla loolu Cheikh Oudiyane mooy ki garanti mu ne donte da nekk sa mujj ak lax sax loolu dafa sori waaye da koy jàpp ba pare xam yàlla fii ba pare continuer dund loolu moom bàyyi sa yàlla ba sa dee jot nga doog a dee moo tax sa faas ñenn ñi àndoon na Cheikh Oudiyane xam yàlla bi dëkk. كنت يا خمي يا خمي على مراسي يا كنت يا الحمد والسكري والجذب والمعرفة والمحبة لو ما تاريخ سيو فيا مدار مو غاني تاريخ بيني تاريخ لا بو خمني بيني دو تاريخ الليغي من تاريخ بتاريخ الليغي ni la gënoo xéwal yaa wàññi nañ ne tàng wax loolu mu ne parce que tayeqa bi tayeqatu naa xaasi laa tayeqatu xamali la wax sama tayeqa bi du tayeqa liggéey léegi lu tax mu ne is xamaluha qalilun wa sawaabuha kasirun tariixa la boo xam ne ngëneel li dafa bëri yool bi moo bëri waaye mu ne liggéey bi dafa tuuti lool da ngay def lu tuuti ñu fay la si yool boo xam ne bii nii boo doon góorgóorlu jundee xar mu doo ko am ndax dikk rek jël wird bi rek nekk wëlliw nit dund na dund na dund na dund na sofiyanke bay waaji dee te xamul ne sax ak wilaayam ndax leer na wala leerut te Seexul Yàlla boo dikkee rek ci buntam bi rek boo taxaw rek moom garantie na la sa wilaaya nee na bi ñu koy jàpp rek wëlliwu bi ngay jàpp tarixa bi rek nee na yow wëlliwu ko tampoon nañ la sa wilaayatu kon tarixa liggéey bu fekkoon ne tarixa liggéey la wilaayatu ba nga koy am di nga góorgóorlu bay bëgg dee turi yàlla bu nekk da nga ko sikkar rey sa bopp bu bëgg a dee te sa wilaaya sax du leer waaye Cheikh Diagne boo dikkee rek booy jàpp tarixa bi rek la ñuy tamponoon tamponeel sa wilaayat nga nekk wëliwu soo góorgóorloo nag bu waa dangay nekk xaas xaas boo xam ne bii nii ah, xut bu sax ngay moom moo bàyyi xut bi yar xut bi moo yar bi yëpp ñu si góorgóorlu ba am dara ñi ñu ay xut bi mat sa kële ndax Cheikhul Jaan mooy wëliwu bi nga xam ne bii nii maktuum la ci moom lay xut bi ni tëj leer moo taxoon moo xam ne sama tariqa bi du tariqa bi du tariqa bi liggéey

إنه كان قهارا يرسل السماء عليكم إدرارا ويمدكم بأموال وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بوين واخا استغفر الله مو جيغل لين دوما يم سي جيغل لين واي دينا لين دوتي اي خيوال تبو لين لان علال تبو لين اي دوم بن لين اي سيون لي يوخو ني بيني ليپ نغنين لاي نيك مولاي يونس عليه السلام نيم نيولي يا رسول الله damaa ji bëgg mu sax asamaan si dafa gëj a mu taw si moom na ko yaa rasulallah damaa bi na ko del jàng istixfaar ñun ñëw si moom na ko yaa rasulallah man damaa bëgg alal damaa ñàkk faqir lool bëgg am yonent bi na ko dee jàng astaxfirullah ñu ne saabu bi taw waram am na ñeneen xuseyfat ibnu yamaani la laaj ko na ko yaa rasulullah man kat jommi na yow ñetti question yu wuutee mais ñëpp ci benn réponse nga leen tontu yonent bi na ko yàlla moo wax ne istaxfiru rabbakum innahu kaana xafaaran yursili sama aleykum midraaran wa yumditkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaar bu ngeen waxee istixfaar man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man yàlla ba alal kon moom bëggee alal lay jàng astaxfirullah bu ngeen waxee istixfaar ma tawloo asmaan si mu ne kon moom am ndox na jàng astaxfirullah bu ngeen waxee istixfaar ma jox leen doom kon moom am njaboot na jàng istighfar te lii lépp nga ne la Cheikh Olyane dafa ñëw lemal ñu ko jox ñu ko ñu koy sikkal suba ak ngoon leneen ne lan la salaatul faatiha muy ala nabi يالله وانا في القرآن من يقوم لهم إن الله وملائكة رسول الله النبي يا الله الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يالله نبزر من الفيرين من الله وهن ما يؤر أمرين وهن ما يجح أزكى أمرين وهن ما يسرح أمرين ويفين رجل واحد ما يقول أمرين دفناه سمع ملاك دفناه ديجن على ين دفناه مسرات رجل مسرات فاتح

tudd leen moom ma tudd leen feneen na ana jaari su yàlla maa ngi toogaalee képp ku na rek ñu bëgg yàlla toogaale la ñuy wax laa laa rek toogaale yàlla ndax bu yàlla ñun dañ fan bi ñu fa ñuy asaf ñu jug fi sat fi wécc moom jëmoom te bu fi yàlla rek desee su boobaa lépp dafay rek dow ndax yàlla mooy kiy defar lépp kenn defut dara moom rek mooy def te boo jàppee tarixa bi di nga jàng di nga jàng lii Cheikh yàlla wax na ci kunaasam benn kunaasam mu ne tariixa bi am na benn turu yàlla boo xam ne mu ngi ci ci man mu ngi ci mboolu tariixa bi mu ne boo ko isaabee mu ne turu yàlla bi juróom-ñaari araf la boo ko isaabee téeméer la lay jox cent mu ne képp koo xam ne bii xam nga turu yàlla boobu noonu mu ne bu la neexee sax bul laasi bul jàng wedd laasi bi suba ngoon moo ko wax donc xam naa gars ñoo xam xaalis

tariqul maadi fadli la lépp ngëneel la lépp ngëneel la ngëneel bi mooy lan nga xam ne bii mooy ngëneel bi nga xamante bii nii si la faydu tijaani feeñee yëpp di feeñ ci tariqa bi la ñuy feeñee ndax baa ngi soxla ko mooy faydu abaani Cheikh Tidiane mooy kii moom bi kon ci tariqa bi la xeet yi ci tariqa bi la ñuy feeñee Cheikh Tidiane mooy ki leen di feeñal. parce que bàyyi lu mu waxoon nasiihatu minni ilaa ixwaani la wax laay biir la bu jëm samay mbokk mbokk ñan ñan mooy mbokk mbokk deret am na mbokk dëkk noor am na waaye mbokk ci yàlla moo taxoon bàyyi di wax ndax ñi mbokk ci yàlla la doon laay biir waaye laay biir ñi nga xam ne bii ni bu waxee duñ ko déglu moo xam ay dëkk nooram lañ moo xam ay deretam lañ waaye ñi nga xam ne bu wax dinañ ko dégg noonu lañ wax te yàlla wax na si alxuraan ne إن المؤمنين يغوتون في أسنى وبين أقويكم وتقول لا لعلكم ترحمون يني خالد بي ين بوك گم گم ين اي بوك نيا نا ين ريال يالا تا يو نين بوكو لوم بوكو گو مو نكو يو نين موكو في جابو ني تاريخ تي يالا باسكو بوكو دي ني واخ جي سي يالا تك سي اي سي سار بو نو سو اجرات سي ني كومبران لي مو بوكو واخ باسكو وانا ني يالا لي ام لا يسخ خو ني قوم الا ان يكون خير منهم ولا نزاع من نزاع أعزى أن يكون خير منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب باسم فنعرف مؤنن يا رزاع من كلمة كذا من ب يا الناس إن خلقناكم لكم سكر أنزا وجانا صعوبا وقبائل لتعارفوا في dafa بره ne bul مكو بره mbokk mbokk bu bu ko reyee ويد goo xam ne rey kiñaan la muy de salaat faatee rek moo mën a waaye wirdu salaatul faatiha rek moo mën a def sa xol bi ba nga xam ne bii nii yow doo am jot joti sax di jëw nit day am si moom jot bu ñaaw ndax itali bu kesre mi nesan bi ñaaw njortu bakkaar la te salaatul faatiha boo koy wirdu doo jot lu dul lu rafet parce que sa xaatir bi dafay jokkoog jëmm yàlla direct ndax bu waaye yaa ngi àgg ci aqul bële muy aqul rabbaani correspondant ngi am ak jëmm yàlla ji ba yow doo tala xaatir si nit loo xamante ne bii nii da lay def njaaw njort te loolu Cheikh Oudjian Cheikh Oudjian lañ ko mën a amee ci tariqa bi lañ ko mën a amee

ci tëggin boo xam ne bii gudd na lool su ko doon lim di fi bayee ko wax na awlum awsa wa ahlu zarma kasaaka gakumpa xëy fiim xamma wa jaani yoroba kasaaka muuse wangara wa jaani malfarsi kasaaka katukuli wa faafaraw ato kasaaka xunja wa minel fayd rawo wa xoomu qurama wa busanga wa fula ngaawu wala aqusu anni wila kurunsi jaawu wa kusaasa wa lubbi balku daqaati fa adara nasbi basara xaadara fati qabaay la ñoom ñëpp mu ne saxaawum xat mu tiyaani xaay ñoom ñëpp Cheikh Oudjane mooy keneen ñu nandal kon tariqa bi mooy nandal xeet yooyu yëpp pour ñu mën a xamante tariqa Cheikh Oudjane bi moo tax ñuy xamante boo xamee awsu bi Cheikh Oudjane tax suñ demee ba bambara bi ne si sëriñ sax Cheikh Oudjane tax soo xamee njaago bi Cheikh Oudjane tax. soo xamee wàngara bi Seexul Tijaan tax koo xam rek Seexul Tijaan mooy kii boole loolu ba ñuñ mën a xamante te xamante bi bu amee rek jàmm am kon Seexul Tijaan mooy ki tax sa islam dëgër ndax l'islam leen rek la muy salaam muy jàmm kon bu jàmm amee si àdduna bi sax Seexul Tijaan mooy mooy tax moo tax jàmm am su taxaw doon moom si xeex rek la ñu dëkk moo tax yoonu saa bu ñu dikkee dafa xeex ba dem ak Seexul Tijaan bu ñu dikkee xeexul kenn day jël gaay rek jël gaay rek di boole

moo defar lépp yàlla bi ñaawoon yëpp moo Seexul yàlla mooy ki ko rafetal ci tarixa ci te moo ngi ko defee ci tarixa bi ngëneel bi gën a rëy ci tarixa bi mooy faydu tijaan doole na rek ñu waxtaanee faydu bi rek ci ngëneel ngëneel tarixa bi ñu waxtaanee ngëneel tarixa bi ñu wax faydu rek faydu parce que góor yàlla yëpp ut nañ ko mënuñ koo am lu tax mënuñ koo am parce jikko ji Seexu Tijaan li ñu jiitu Seexu Tijaan Abdul Xaadir Jilaani ut na ko mënu ko dina xar bi xaati ma ñoom ñëpp mënuñ ko am parce que tariixa bi jàppuñ kii maye faydu bi mooy koy maye ndax ma loo xamante bii nii soo ma ko joxee dootuma yem ak kenn loolu la Seex loolu bàyyi ñu jox ma loo xam ne bii soo ma ko joxee dootuma yem kenn Cheikh Olyane na ko mel ni Cheikh Olyane da ko posé question na ko lan moo tax mu war la koo jox bàyyi gis na ko parce que fuxta ku dul usaax man bàyyi damaa raw képp ku lay bëgg moo tax nga war maa jox loo xam ne doo ko jox kenn Cheikh Olyane daal di jël faydu tijaan yi jox ko ko mu ciy naan moo mbooleeg umam bi kon faydu rek doy nañ moom mooy ngëneeli tariqa bi te ngëneel la boo xam ne bi nga ko waxee rek mu am mu ëmbaale lépp te du ma dara boo ko jàppee bala ngaa dee ci yàlla dem dem ba xam yàlla te yaa ngi ko xamee si faydu tijaan yi faydu bi faydu bi moo la xamal yàlla wala tarix bi moo la xamal yàlla waaw faydu bi moo faydu bi moo xam le yàlla wala tarix bi moo xam le yàlla maanaam Seexul Tijaan laa bëgg wax moo xam la yàlla wala bàyyi moo xam le yàlla parce que askar bi ngay sikkar istixfaar la salaatu faatihi laa ilaaha illallaah yaa xam lim boo si sikkar nag ma am fadu ci biir yàlla

mi ko anime oo nañ ko mu bàyyi koo fan la nekkoon toog ne ko génnal ñëw man raaka raani loolu yàlla wax loolu si addis sa addis ba wala ci beneen gis man la la gis rek man la gis te ku ne xam ne pays Azal Koursi yëpp yàlla lañ fay fekk Seexu Jaam mooy kii kon ku al fàttu ci pays yàlla bi rek Seexu Jaam mooy kii eggale moo tax tariixa bi ngay jàpp bu am foto ci pay yàlla bi moo tax bàyyi xam gi nga xam Seexul Tijaan bu ko ñëpp xamee woon Seexul ko doon duñ xool leneen xam ki nga xam Seexul Tijaan nag moo tax Seexul Tijaan tere léegi loo xam tere léegi ko kenn moom maanaam Seexul Islaam ala moom nag li yéen si laay seen jox tariixa bi nii tariqa bi nag mënuñ ko wax dañuy waxtaanee suróotu tariqa bi mënuñoo lim yëpp waaye dina am lu ci tënk rek ndax tariqa bi am na ñaar fukki sàtt ak ñett ci li nga xam ne bii dañ koo lim 23 mënuñoo tënk lépp ndax waxtu bi mu ngi sori bokk na ci sàttee tariqa tijaan bi si jiitu mooy awalan da ngay njëkk am yéen bi ndax yéene moo jiitu lépp lépp lépp yàlla mi ngi doxee ci yéene innama amaalu bi niyaati innama li kulli imrin ma nawa te yéen salaay salaam wax na feneen ne niyatul mu'min ablaxu min amali jaam bi yéeneem dot na jëfam kon li ci jiitu mooy da am yéene bi pare da am pas-pasu jàpp tarix ci yàlla loolu sant ci tarixa la gannaaw bu amee yéene bi nag dangay am koo xam ne dala dafa doy dafa dalaa doy sëkk ci jàpp si ci nécessaire am koo xam ne dalaa doy sëkk si nécessaire yi te bu mu nekk koo xam ne bii nii yaa ma neex lay dem waaye mu nekk koo xam ne bii nii reconnaître ne kii mat na pour yére parce que almaami sama Fuuti waxoon na ko waxoon na ne falaa taqaddama taqaaduka bi annahu murabbi bul jiital xamante rek xam nga waa ji sama waay sama copain la ñoroo fréquenté wala boog sama mbokk la cër bii gën a séddu ko rek nga ne damay ñëw mu nekk sama sëriñ nga ne déedéet bul def loolu mu ne jiital la koo xam bii nii leer na la am na mu rab bi yarekat maanaam mën na yar am na qualité yi nga xam ne bii nii mat na pour mu nekk sëriñ kon boo ko di sart yi yow mi nga xam ne yaa ngi da ngay ut ku la doy te ki la doy mooy kan mooy ki bàyyi si décrire rek wala mu mën a biir xabila naasiyan kaamil irfaani imaamu saalihan نانيك مربي كم الألوان شام فولي واحد نانيك قبير أم سائر أم نخمة باتين وين نانيك إتيم كوهان دفع مات تقام حارف مدلا وين نانيك كوهان بين جيدل وين نانيك كوهان دفع لاي بير دلائي لاي بير بس كأدين ونسيان دين جي دين لاي بير تم بولا ميون دي في ديك سلب نبتن بس أقل لاي بير يوم دي أول مرة بخون إنتي منين وأنا لكم ناسي وأمين man dama leen di laaj bi yoon yàlla sommet boo xam ne tamit ne man nasartu lakum walaakin laa tuhibbuuna naasihiin man dama leen laaj biir waaye yéen gis ngeen yéen bëggu leen laaj biir feneen fi yoon yàlla ut na wax di tamit ne man nasartu lakum fa kayfa asa alal qawmi kaafiriin dama leen di laaj bi waaye gis naa ne ay weddikat la kon mboolem yonent yi kalima bi ñu utilisé mooy nasiha laaj biir moo tax bàyyi bi mu dikkee moom mi nga xam dafa dégg waaye nag maa doon ni mboolem yonent yi bu mu dikkee li mu dégg wax dana nasiha bi mel nii loolu la dëkk bi laay biir baat boobu la jëkk wax maa ngi laay biir kon sëriñ bi itam na la mat ci laay biir dina laay biir ci tere lu bon waaye dina laay biir si omat la jëmee si lu baax kooku mooy kan kooku mooy kii nga xam ne bi moom war a doyloo boo jëlee nga dikk nag bokk ni sànq ba tey boo jëlee tarix tijaan yi doo ko booleeg beneen tarix doo ko jàpp ba pare di ko booleeg leneen loolu Cheikh Waliane da koy tere ndax Cheikh Olyane dafa fii kenn du ko bokkaale dara ndax yàlla moom loo ko bokkaalee rek mu mu balaa noonu moo koo xam ne sax dafa wax ne jël na tariixa bi boole ko keneen boole ko benn ko beneen dafa waxoon naa tariixa bi dama koy boole tariixa kii yàlla mu ne loolu dafa jomb lu jomb mooy lu mënul ne loo xam ne mënul ne. mu dem si kaw sax mu ne kasa bu waxtala alalaay jal ini aqulu ini sal wir de bajal mu ne nekkoo ko fen waaye bu yem si ne ko day fen sax mu teg si waxtala ne ko day duul ba waa day fen waaye ne ko mu ne parce que man bàyyi maa ngi wax ne wirdu bi dafa màgg ini aqulu ini sal wir de bajal wirdu Seexul Tijaan bi dafa màgg dafa màgg loolu moom màggaay bi mu xam ci màggaay wirdu Seexul Tijaan moo tax ba mu dem bay génn àdduna sax dañu imam Seex imam Asan yeesalam sama wirdu Tijaan ma dee nekk du Tijaan te réussir na dundam yëpp su ko neexoon mu sukkandiku si na li ma def rek dikk naa samp naa juma jël naa nit ñi omal leen yóbbu leen ci ah, naa nit ñi xamal leen lislaam jàngal naa nit ñi téere yi lii rek doy na ma réussir naa waaye taxul ba tey mu óolu nee na imaam Assane yeesalam sama mbir tiyaan ma day nekk di tiyaan kon Cheikhul Tijaan mooy baabu najaati ñu muccee si moom la ñu moo tax bàyyi si wax ne di ngi wax ini weddi Cheikh Tidiane gi lu màgg ne inni aqulu inni sal wirda bajjal weddi bi lu kon bogo dogo doo ko di ko booleeg beneen wet dafa xaraam soo ko defee Cheikh Tidiane da lay kon bogo ne sati, yi nga jàpp wiru Tidiane bi doo ko bogo ko bokkaale ak leneen bokk na saat yi tariixa bi ba bi comme bi da ngay bu kon taalibe Cheikh Odiyaan da ngay julli da ngay ko julli ndax Cheikh Odiyaan laasim suba ak ngoon ñaar yëpp boo koy def si gannaaw waxtu julli nga koy def gannaaw julli suba gannaaw julli takkusaan foofu nag moom aarifoon bi laay ñoo ci ëpp dégg-dégg ndax baax na subi baax na salaatu asr la jël wér di laasim def ko si te salaatu wusta gars yi si sàkk nañ si ñaar ñaari yooyu noonu ñii nee nañ salaatu wusta moo julli nga moo gën a màgg boo ko jullee ñu ne bu neexee bu julli ci mucc nga texe nga sa julli mat na saadu boobu noonu ñii ñeneen julli suba ñii ñeneen julli takkusaan soo yaa mu may la nga am ñaari mooy boo jullee suba laasimal boo jullee takkusaan laasimal si Abdou Xaadir Jilaani ne wasali salaatu subi fi awali fa asi salaatu xaarifiin bi rabbihim julli julli xaarif foofu sew na de ndax Cheikh Ndiaye <laughs> moom dañ njëkk a leer la foofu moom seex na lool julli julleeg suba sa ñër gën a tàkkusaan Cheikh Ndiaye ñëw jël tariqa bi bi laasim loolu suba ak ngoon jël wasifa bi nag def ko ci ginnaaw timis am na ñoo xam ne nag bu ñu ñaan wasifa ginnaaw tàkkusaan ah dagan na sax ba tey nga dee wasif sax suba dagan na ba tey nga wasif suba waaye nag ci dégg ñi la gars yi ëppante doole lu tax ñi daa ko ginnaaw timis dégg la lu tax ñi wasifa ginnaaw tàkkusaan dégg la lu tax ñuy wasif ginnaaw suba dégg-dégg la ku nekk sa dégg ni mu toll rek noonu nga jëfee kon boo ko jàppee da ngay julli ci mbooloo boo jàppee tarixa bi ba tey itim da ngay jóg di siyaarante sa mbokk taal bi mbokk tarixa bi ndax mu daaraante bi ngeen mu daaraante te waa tarixa bi moo gën sax tarixa bi moo gën wir de tarixa bi ndax si yow yaa wax na ko waxoon na ne jëflante axbaab yi xayrun min al axbaab min al askaari waaw mulaaxaatil ak ixwaani xayrun min askaari wal awraad mu laa di di seerante sa mbokk taal bi jëflante bi ngay jëflante ñoom mu ne moo gën askaar bi moo gën wétt bi parce que ñooñu mbootu Seexu la te Seexu Tijaan moom moo gën wétt bi parce que bi li muy rëy rëy rëy bëgg Seexu Tijaan rek moo la siy jëriñ bu fekkee da ngay wétt suba ngoon te ma amul Seexu Tijaan bokk doo jëriñu ndax Seexu Tijaan bëgg gi ngoy bëgg moom mooy tax nga am boori tarixa bi ndax moom moom mooy jëmee tarixa bi kon wéddi bu bëree bëri itam te bëggoo seewal yàlla am na njëriñ kon bëgg seewal yàlla rek la ci namoon jàpp bi nga jàpp tarixa bi di wéet lazim mu yóbbu la si nga bëgg seewal yàlla rek la ndax seewal yàlla boo ko bëggee rek xam yàlla boo bëggee seewal yàlla xam yàlla loolu moo arrivé ñu si ab dégg-dégg parce que yàlla dafa wax ci alquran itaqullah wa yuallimukum Pape Maye Niass alxalifa ba mu ngi fii dafa waxoon ne yàlla waxut ragal leen moo xamal leen déedéet yàlla duñ ko ragal iblis moom moo ragal yàlla iblis mooy ki ragal yàlla waaye yàlla duñ ko ragal mu ne bëgg leen moom ma xamal leen boo bëggee Seexu Tijaan rek xam yàlla Seexu boo ko bëggee rek xam yàlla moom mooy ki xam leen moo tax yàlla waxoon ittaqullaaha leen ma ma xamal leen waaye duñ ko fekkee duñ ko fekkee ragal ndax yàlla boo ko ragee du la xamal ndax boo ko ragalee da koy daw doo ko jege. waaye koo bëgg rek ñeme ko doo ko ñeme ñeme ñeme de waaye da ñeme bëgg du bëgg koo jege moo tax bu ñu bëggee seexut yaa nga xam yàlla moo tax bëgg gi rek mooy tax ñu am tariixa bi moo tax su yaa ngi mu mag ba muy Mouhamed Ali Taasi bi nga seexut yàlla mayee muy gis yonent bi sallallahu mu si gis yonent bi 24 fois si 24 heures mooy une bu néew dana gis yonent bi mu demee ba nga xam ne bii loolu mu si bëgg a ndaw yonent bi da wax na ko lawa mahabbatu cheikh ma raaytu bu fekkone neko nekkoon da bëgg cheikh yaan do ma gis bëgg gi nga bëgg cheikh yaan sa tam mo moo tax nga may gis way so bëgg doon cheikh yaan do ma gis kon tariix bi lo ci am rek bëgg cheikh yaan mo ko lu ci nekk am rek bëgg cheikh yaan mo ko may moo tax Baay Ñas digle ne nañ ko bëgg cheikh yaan dañ ko bëgg dañ ko bëgg waaye nit nañ ko bëgg nañ ko waxtaanee dafa war si ñun ñu bëgg Cheikh ci yaan wax fu bëree bëri ci ay waxam dañ ko gisee waxtu ko digle muy rawatina nag bu dee si moo gën askaar moo gën awraad yi waxtaanee sopp mi sax tey na moo gën askaar yi moo gën awraad ndax waxtaanee ku mel ni Seydi Ali Arasi bi moo ki mooy beneen sofiyanke bi Aliñ moo gën askaar moo gën moo gën wér la